jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte mbokk yi comme ni leen koy defalee saa su ne eh, di dugg ci mbër yi làmb yi di dugg ci xew-xewu làmb yi di dugg ci xibaar yi nga xamante ne xibaaru làmb la tey nag ñu ngi fii ci Parcelles Assainies ah, eh, boo ñëwee ba côté fii ba unité ñu seet fi xale boo xamante ne vieux Euh, champion la nekk Rock Énergie euh, doon xale euh, nekk fa ak ay moroomam di def li nga xamante ni mooy làmb waaye ba tey bi mu ci nekkee ba léegi mu ngi jàpp taw bàyyi mu ngi def ay jéego jëm ci kaw saa su ne nag dañuy dañuy yéemu ci li nga xamante ni mooy tekk tekkaaram dañuy yéemu ci li nga xamante ne mooy yaram ak tegginam moom lañ seet si tey ngir waxtaan ak moom Vieux Top maa lay nuyu. Djily maa lay fay di nuyu waa Akhlu Lamb yëpp di nuyu waa Wassare Lamb yéen ñaanal seen site bi yàlla na ko yàlla na ko suñu borom yokk quoi ba ngeen ba ngeen raw site internet yi waxuma site internet waaye képp kuy média rek yàlla ngeen ko raw man man loolu laa leen di ñaanal di la ziar nag di ziar caméraman bi di ziar ñëpp waaw loolu quoi. Euh, waaw mbokk yi pour ñu leeral tuuti benn entre mooy Vieux sampion champion la boo xamante ni di ñu jékki-jékki gis ñu tiitre ko ci ci ci internet bi euh, yëgal ni xibaar yi mbokk yi Vieux dafa génn àdduna. mu doon loo xamante ni njàqare la woon ci ay mbokkam mais njàqare la woon ci ni nga xamante ni jege woon nañ ko xamoon nañ ko loolu tey moo tax ñu gën a bëgg a waxtaan ak yow Vieux Top euh, mën nga ñu expliquer loolu nan la demee. non ni mu ni ko ñëpp gisee dong laa gisee ah ni ko ñëpp gisee parce que man yeewu naa pour dem entraînement sax nag ay 7 heures dama yeewu pour dem entraînement mu julli ba pare mais sama yaram neexul ma ne xaaral ma tëddaat quoi parce que lundi pour nga dem salle des fois day metti lundi pour nga dem saal day metti ma ne xaaral ma tëdd tuuti ba ngoon ma dem géej suba ma dem saal mais xam naa ni durant bi ma tëddee bu ba mu defee une heure xam naa ni moment boobu lay doon parce que man j'ai j'ai l'habitude xam ma li gën a métti mooy man j'ai l'habitude heure bu may tëdd sama téléphone dama koy def mode d'avion xam naa bu tombé moo waral ay gaaf ma ma def ko mode d'avion tëdd ñi may woo ñu ma jot li ci yéeme si sax du loolu mooy li ci yéem mooy damaa tëdd après bi mu tëddaatee ma yeewu gis appel yu bari mais sama xel ba léegi dawul parce que nu ma quoi. ma dugg ma taal sama WhatsApp gis message yi di sonné comme comme su ko laalee mun na plaqué sama téléphone ma ne naa ko bàyyi noonu ma bàyyi ko noonu dem ndékki ñëwaat bi ma ndékkee ñëw di dugg rek daje dégg suma suma mag bu bu góor bi mu taxaw si bunt bi nooy nooy métti mu ne ma dégg mu ne ma ñu ne ko vieux mu ngi nii mu ne xanaa gisoo publication bu la defal ma ne ko publication mu ne ma dugal Facebook ma dugg Facebook rek page bu ma yëgati rek. Mm. gis sama photo. ñu ne ñu ne damaa deew ak damaa laxoo ak yéen mu dugg mu dugg xam naa ne ki ko njëkk publier daal Marème Seck la tudd. maanaam Seck moo ko njëkk publier yenn site internet yëpp dañoo copier coller mais kooku mooy coupable parce que moom moo ko njëkk boo xoolee heures yi ñu ko publier moom moo bu ci ah, gën a métti sax quoi bu ci bu ci YouTube nga gis ko ñu ne dama dama wàcc liggéey itam man maa ngi si jàmm maa ngi sant bu baax pas ma dugg ma dugg Dakar Buzz mais yeneen sites yi ko publier ñi nga xam dama yor seen numéro dama leen woo carrément ne ñu dindi ko dara dara jotuma gëmuñu gëmuñu ko ne yow ñu tàggee la nga ne Apple vidéo la ñu mujjee woo pour doo ko mm-hmm. waaw fii ci fii ci réew mi am na benn site boo xam ne moom aw ma xam naa ne moom nekkul ci réew mi parce que dem Africa la tudd man site boobu xamee ma ko fii. Mm. waaw kooku moom ba dindiwul publication xam nga moom moo métti mais mais site bi ko njëkk a dugal xam naa ni at mi biñ xamee ne du dëgg bi ma defee sama réaction dañoo supprimer ñoom publication gel bi. Mm. après nag gars yi fas yéene ne nee naa riposé bi mu riposé capturé moom man te li ci a garaaw mooy publication ba léegi mënu ma ko gis. Hmm. ba léegi nii mënu ma léegi mënu ko gis te man dugg naa ci ne fu ne mënu ma ko gis mais am na sama yeneen xarit yu ko gis ñoom ñoom ñoo ma wan ay capturé capturé dong laa ci gis. Hmm. gis tur beeg mu avisé si kaw mais bët ni ma wax yow nii dugg naa sama net mais mënu ma ko gis mais ñoom bu ñu duggee seen téléphone dañ koy gis te man mënu ko gis <laughs> loolu moo ma ci ko quoi. mais li ma bëggoon xam mooy ndaw si ban liaison nga amoon moom da ngeen a xamante xaw ma ko sax barki alxuraan xaw ma ko sax xam nga tey kooku noonu gis nga dañ sant yàlla quoi ba ba doomu aadama yorul yorul bakkanu nit ki dund. am na ñoo xam ne tey bu ñu sa bakkan tey doo fanaan waaw parce que yéene rek yéene yéene maanaam bu doon lu waay yéene lu waay yéene nit mu dal ko kon. tàmbalee jooy sa bopp ndax say noonu. kon réew mi jeex na sa waay loolu dafa tal kon réew mi jeex na bu doon lu waay yéene nit mu dal ko mais yàlla mooy yor ñëpp ñun mbakan bi wër na Serigne Touba Mbacké soxlawuñ ci dara parce que xam nga tax suñu borom mooñ ko mooñ ko moo ko moom. heure bu bu mu ko jëlee baax na yàlla xam na ko waaye lenn dong la ñuy ñaan mooy. heure bu koy jël rek nañu fekk ci lu baax ndoxte bi ñuy sàkk tàgguñu bu koy jël bu ñu tàggu waaye nag dafa ñaaw trop nga ray koo xam ne te saa yi man dama am yaay dama am papa dama am xarit dama am mbokk dama am soxna waaw imagine toi lii bi muy daw soxna si dafa feebar. ma nga bitim réew tëdd dafa dafa feebar yi saa yi parce que guddi gi yëpp. li gënoon tax sax mu xëy dem sax parce que guddi gi yëpp moom laa doon waxal parce que dafa feebar te mënul nelaw et tout moo tax ma koy ma ko doon gunge ci guddi gi. léegi nag mu guddee tëdd yeewu sama yaram di métti mu waral ma dem mais imagine toit tey nga nga takk soxna yàggul mu mu feebar nekk ca ca bitim réew. yaa ngi comprendre moment li ci li ci garaaw du loolu de imagine tey bu bu duggoon Facebook rek yeew rek dugg gis ko mu woo ma boobu. mu mu ma jotuma comme ñëpp niñ ma woowee jotuñu ma réaction am lan la war a doon. non man moom xam naa ne du doon benn jàkk ñaari jàkk lay doon waaw ndax su ma waaye la suma soxna la waxuma sama soxna kooku sama yaay la euh, sama sa sama rakk la sama sama sama jigéen la sa jabar doog ñëw mu doog a nekk sama soxna Aïda Cissé waaw ku ku baax la man bàyyi naa sax mais moom ba léegi bàyyiwul mi ngi ci ndend bi def ay recherche sama ak noonu xam nga <laughs> maa ko yàq léegi ci affaire de ci recherche yi fu ne dugg dem na ba xam ci net loo xam ne xamatuma ko waaw mais dafa dafa ñaaw quoi maa ngi koy sant di ko gërëm nag parce que affaire bi awee ba moo tax man bi ma ñëwee di ko message dama ne ko bonjour mu ne ma bonjour rek ma xam ne kii xamul la xew. waaw après ma teel ko ma teel ko waaxu nag xanaa yëgoo li xew mu ne ma noonu sama sama xol ak sama fit doog a dal. parce que xam naa état de santé bu mu toll wala loolu garaawul xam nga xam li garaaw mooy nit ko am ay mbokk mu am ay mbokk ay mbokkam xamoo ban état de santé lañ toll. Sabarack dafa ëmb ba diis gànn. Adja dafa ëmb ba diis gànn tam moo topp ci man. imagine toi te état de santé bi mu toll tey bu jékki-jékkoon rek yam ci noonu dugg Facebook rek yam ci. affaire bu garaaw nii nit ku nekk nag na nga ay xarit na am ay soppe mais man publication bi ñu def rey ku deewul wala diw dee na taxul diw dee bakkan yàlla ko yor moo ko sàkk moo koy jël. waaye lii ji garaaw mooy ay mbokkam xamoo ban état de san xamoo ñu ko bëgg xamoo ñu ko bañ yow tu s'en fous mais man leen dong laay laaj ak leen dong laa ko doon laaj bu dee moom mi may dégg publication bi ban ban ban jubluwaay bi lan la quoi. lan la ci jublu waaw la jublu quoi moo. loolu mooy question ak la moo tax mu tàmm malgré du c' est pas la première fois ñuy ñuy ñuy wax ci nit ne diw dafa dee te deew c' est pas la première fois xam nga mais dafa doon loo xamante ne si nii chaque gis ko si net bi léegi. man c' est la première fois mu dal malgré euh, non dafa dafa garaaw malgré chaque jour nga gis ñu def ko nit ci net bi. mais man musuma ko sax naane ndox waaw musuma ko sax xalaat yàlla xam na ko man affaire bi daf ma choqué woon mais côté boobu la ma gënoon choqué soxna si feebar ay barki Seexul Xadim ba léegi savouré guñ sunu mariage ñaata mois mu nekk fii tëdd waaye ah loolu rek dafa metti si si nga nga waxal li jëkkëram loo xam ne bu ko yeewoon na si jàkkata yi fan ay ay fan la koy waxee ba pare am na ay mboxam yu ko njëkk woo de moom am na ñu ko woo mais bi ñu ko woowee dañ doon xool réaction am. yëg nañ ko parce que affaire bi dafa gaaw parce que mu dafa gaaw kooku bu ñu ko dugalee rek site internet yi dañ ko copier rek kolewaat. jël YouTube sànni ko fa loolu moo tax mu gën a doy waat te amul benn doomu aadama buy xëy suba ngoon te du laal internet parce que du du maanaam du du jikko jamono la jamono moo moo toll foofu loo xam ne lépp internet daf ci am wàll. te te te li ci am wàll nii xam li ci am solo solo moo ñu xam nañ ko utiliser ndaxte netul internet vérité relative la bu ko neexee mel nii bu ko neexee soppeeku du du loo xamante ne si nii boo gisee tey ni nga ko gisee tey ni nga ko gisee suba. mais yàq yàq der doomu aadama ci ko xam ne doomu jàmbur bàyyi sam papa marché la ko yëgee. waaw ñoo ko téléphone di ko di ko sigil ndigaale mu ne ko dee ñu ne ko sa vieux Tom lañu moo def accident daal nooy gi daa fàtte tam dafa am cardiaque añul añul jour boolaam ñi ngi ko tege noonu la tëddee ci kaw la mënu sax julli waaw c'est la c'est doo ngi gis c'est la première fois ñu noddu si si jàkka ji te te mënul dem julli billaahi parce que day doon li nga xam ne sama waay la sama partenaire la sama sama sama lépp la quoi ñu wax ko i imagine toi tey bu ñu raween papay jàmbur sa waay rey soxna jàmbur rey yaay jàmbur ma am ay rakk am ay mbokk loolu moo ci déranger quoi mais du bakkan bi bakkan bi moom saa yi <laughs> rey ko deewul taxul mu dee. mais yi nga xamante ne say moromu nawle lañ nekk ci écurie Rock Énergie euh, bi ñu ko yëgee ban réaction la ñu sant guy gi bu baax guy gi moo faram. waaw kooku euh, c'est nam yi boo xam ne yamalewu ko ci làmb te musuma ko gungee ci bisam. mais bi ñu ko yëgee bokk na ci mbër yu njëkk a réactionné ñeme ma woo de benn gel la jox téléphone bi pour mu woo ma kooku doog ma waaw kooku doog ma woo mu doog am fitu woo ma bi ma woowee ne ma vie top bi ma ne ko naam dafa yuuxu barke Serigne Touba muy muy ko am kóllëre ma koy ñaanal yàlla combat bi mu jëm diggante moo rëg rëg barke Seexul Xaddim ñaanal naa ko sama xol laax tibee yàlla yàlla na ko suñu borom may ndam lu rëy yu kaw njortam te barke Seexul Xaddim dina ko am waaw. li ma lay wax nii du caaxaan de guy gi barki alxuraan dina am ndam parce que day doon nit koo xam ne du kase la. yaa ngi comprendre am na say mbokk mbën rek mbëri ndaw def nañ réaction ku ku ne woonam am ku ma wowul dëgg yàlla mais li ci gën a garaaw si samay xarit bu ñu dema allo la Vieux su ma ne waaw ñu ñu yuuxu am na ñoo xam ne ñu message am nañu bind yàlla bu mu doon dëgg mais ma tontu la lan mooy doon dëgg nga wol ma appel vidéo su ma décroché rek nga yuuxu barki Serigne Touba kon benn nit booy boo gis muy dox donte donte benn nit la sax bëgg na ko moo tax booy wax ci moom rek xamal lay wax daal waxal lu rafet. yaa ngi naan booy wax waxal lu rafet quoi loolu moo gën a loolu moo gën a jaar yoon loolu moo gën a rafet waaw loolu la quoi parce que jamono bi et kenn dafa wératul. Hmm? kenn wératul quoi kenn wératul nga jël doomu jàmbur rek jël photom rek affiché si nab bi sa waay site internet yi waaw tàggee ne ne dee na te kooku yow ki nga wax dee na waxu la defu kon mu leer ne kooku yéen bis doy mooy dafa wax bizarre xam nga lu tax mu bizarre mooy xamoo kooku lan la la lan la bëgg fexeel ak fan la jëm ak yow. yaa comprendre loolu moo ci yéeme quoi mais du ay ray nag di wala loolu moo ci yéeme tey kooku li ma leer ba leer ni boo demee chaque jour mu mooy gis. léegi loolu ab euh, par rapport ak loolu bi mu jàllee léegi ban yan yan yan yan matuwaay ngeen ci jël wala yan jumtuwaay ngeen ci. déposé plainte lañ déposé parce que xam lañ déposé maanaam xamuñu lan la si jubluwaay bi lan la. Issa Kora te li tax mu gën a def mu gën a def plainte bi sax mooy bi mu demee ba mu dugg YouTube quoi YouTube loo xam ne bu ñu ko xasee dugal moom da leen leer ne kii ay at du dañ loolu moo gën a tax ma ma dem defi plainte bi quoi te man ma defee policiers yi ma doon defal plainte bi ñoo woon publication bi ne ko yow mi ne naa dee yaay def publication yaay ñëw pour déposer plainte waaw parce que bi bi ma bi ma njëkkee dugg ñu gis ko passe ma njëkk commentaire dama leen yéen ki ngeen di naan paix à son âme ak yàlla nox yàlla yërëm ku kooku ngi nii toog di ndekki di mais ma gis ñu bëri sem sama commentaire boobu ñii naan ma du dëgg ak dugg sama profil du vérifier ak affaire yooyu noonu waaw mais démb ma defee riposte benn publication envoyé naa la ko démb waaye boo duggee sa mu la ne Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg maanaam am na ñoo xam ne doomu aadama jàmm dong lañ ko yéene mais am na ñoo xam ne barki alxuraanu karim bu ñu sañoon doo fanaan billaahi wallaahi bu sañoon sa jëmm ji dox ci kaw suuf neexul leen te pourtant defoo leen dara waxoo leen dara mais yàlla neexul rek waaw ñu bëgg la mais mais li am solo man naa yéene ñëpp jàmm barki seex ko moom mi ko def yàlla dund ba dund sàppi ko barki seex Ahmadou Bamba Xaadim Rasul maa ngi ko ñaanal waaw yàlla dund ba ba dund sàppi ko du ma ko ñaanal fitna du ko ñaanal dara mais dama koy ñaan li mu def yàlla ko suñu borom soppi ba dootu ko def loolu moo am solo waaw de yëpp ay ay détails xelam moo toll foofu rek mais pour man man moom sama esprit dépassé na dugg ci net di di di joxe fausse information wala di publier ku deewul. mu doon loo xamante ni euh, mbokki lu lu lu metti la lu diis la loo xamante ni euh, tey boo boo déggee ni ni ni Vieux Top di waxee nga xam ni macha allah yàlla suñu borom may na ko xolub muñ et am na benn euh, niveau d'intellectuel boo xamante ne mu ngi ci moom. ba ba ba macha allah li muy wax yëpp da xool fi mu koy teg euh, mu doon loo xamante ne c'est pas la première fois jëli naa fi armée bu benn baraak ñu xëy ne benn armée dafa agressé tëj nañ ko ci kaso bi alors que fekk jël photo armée euh, tagge ko ci wax ci loo xamante ni tey euh, dafa doon lu ñaaw tey ñu defaat ko beneen mbër muy vieux top may xamal rek suñu mbokk internet yi saa su ne ma wax ko bëgg alal wala bëgg koom-koom wala bëgg ci loo dugal si site bu mu tax nga yàq doomu jàmbur ngir am lenn loo xamante ni danga koy yóbbu mbubb nag bi nga xamante ni doo ko solal sa bopp ngala bul ko solal sa nawle euh, ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp euh, kenn lañ ñun ñëpp mais ni nga mel ak sa yaay euh, sa yaay moom nan la ko yëgee. feebar daa feebar bilaay <laughs> man suma waay la yoo xam nga loolu sama sama nit la boo xamante ne nii bi mu bi ko yëgee ba léegi nii daf ko metti tey sax la doog am audace pour wàcc mais depuis boobu ba léegi barki alxuraanu karim mer bi damay damay woote damay woote day jékki sax woo ma téléphone dama foo nekk ma maa ngi mu ne ok baax ba léegi xelam dalul wër na yàlla pour moom du man sax maay wax bilaay moo tax mu jógee àndal ma noo def ma ñëw kott ko quand yooyu noonu mu mu jékki-jékki ne ma ki def lii duma ko ko ball billaahi mën na ko baal ko mënoon na ko parce que xamul tax mënoon na mën na ko <laughs> àdduna dafa amul solo waaw lépp lu la waaye def ci lu métti rek mënoon na li ci topp yëpp yàlla na nekk bànneex quoi xelam moo toll foofu moo tax mu def loolu nañuy tooñ say doom rek te say doon tooñ am solo doomu aadama nañ lay tooñ te bul tooñ waaw parce que parce que dafa yàggul quoi bu waree ñun bàyyi saa yi àdduna bi saa yi sama koñ bi keroog jour bi mu amee ngoon gi may dem géej bàyyi damaa sax ruus bàyyi gars yi seen kaw terrasse nañu toll di la tiir waaw sëpp ndeysaan xool loolu bàyyi loolu rafetul quoi billaay mujj bi dama mujjee ruus ma demee géej damaa mujjee tëdd foofu daw tuuti xaar mu timis lënd ma doog a ñibbi si waat illaahi boobu géej ba léegi neexul quoi rafetul barki yàlla maanaam du dara mais xool ñu lay xool di wax rek maanaam mooy loolu barki Serigne Thiaw na ngay dox nit dajeeg nit rek mën na la fii topp yow yow lañ publier ne da dee saa yi man deeguma maa ngi di liggéeyal Serigne Touba ba ci kanam. waajuguma sax barki seexul xadim sëñ waa xam na ne waajuguma jërëjëf Vieux Top balay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. waaw léegi nag man damay lancer benn message mooy maay sant sama soxna bu baax si si ji yow ji kooku mënuma wax benn baat tudd ma ko tudd Aïda Cissé parce que dafa dam fu ma toll ci man wax la bi ñëpp na déet daane waaw waaw te ma leex la yàlla bindul lu gën a fort jëmmam ji te teewul dañ koy tooñ mu ñuy bàll. yàlla bindul lu gën a for Muhammadu Rasulillahi te teewul dañ ko daan tooñ mu ñuy bal ma tegal la si yàlla bindul lu gën a for jëmmi Serigne Touba gi ci kaw suuf bindu ko te teewul dañ koy tooñ ñuy bal kon tooñ lu mu am am doole jéggalu moo ko doole. tooñ lu jéggalu moo bu doole dafa jeex léegi nag ku ñu tooñ ñun nga yëg ak ak nga yëgul ñu ngi ñu ngi lay ñu ngi lay baal ñu ngi lay jéggalu waaye may sant sama soxna bu baax. RC moom bu déggee dina xam lu may wax. wax laay wax de bu déggee mais maa ngi koy baalu di baalu yaayam ak di maman buub di baalu papaam ak Omar Cissé ak toute sa famille maa ngi baalu wax moom xam na li may wax man xam naa li may wax Cissé Ngari maa ngi lay baalu wax di baalu sa yaay ak di baalu sa papa ak sa famille yëpp maa leen di baalu wax loolu wax la <laughs> waaw ji li naa ci yow ji yàlla yàlla defal jàmm jaajëf waay ji mbokk yi